والقلم وما يسترون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 نعمة ربك بمجنون xam naa kàddu yi day digal ci jëmm ji tax ñun ñëpp ñu daje fi te xam naa sax dégg naa yenn bokk yi wax ñu bañ a wax Cheikh Omar ndax mel na ni moom mënees na koy wooye Ximaar Jaañ moo gën a jug ci mbiram sax ci di ko wooyee neneen dafa wax ne mbindum sëñ Touba moom lépp wérul walla luñ mar a seetaat la mu mel ni moom dafa mën a tege tuuma ginnaaw sëñ bi li mu bind dafa bari te fànn yi mu bind dafa bari la doon baax mooy nga teg sa baaraam ci ne fànn gi liñ ci bindee du noonu wala liñ ci waxee du noonu waaye day mel ni moom day junj rek ni ki mu waxee ne ci jumaa ji siiñ boobu fi nekk ginnaaw moom xàmmee na siiñ yi ndax mën naa nekk seen représentant lu ñàkk mu xam na muy mel mu ne boo leen demee ca buntu penku ba baa sawu ba baa ci digg ba siñ ba mel nangam di suñu franc-maçon mi ngi ci jumaa ji mu leeral ko boobaat bu dee laa biire la xam na ne Tuubaa moom léppam diine la euh, ba ca toppit mooy kuy jéeñe sàcc ndax dëlëf dëlëf ji ci yoon wi ak nu ngoo joxe alal ji ñi koy joxe sax xamuñu ne ñoom yëguñu ne ñi ngi koy joxe kon bu mu jàpp ne lu jubut la ba tax sëñ la yàlla tàggatal xol yi bu laajee danañ joxe bu santaanee des na jëf bu dee ci mbindum sëñ bi nag da koo jéggi Cheikh Ibra Diop almachan waxoon ne ci sëñ Tuubaa fa fi kulli baytin min nidaamika ibra biha wax lii ci mbindam nag ida katabtu intazartullah jalla bila ida katabtu aw qaratu xaada liyal badiu fadluhu fan qaada ida katabtu ibtasama sujaau wantajaha li hasidil awjaa bu njëkk wii yonent bee ko moom mooy bu ma bindee yonent bi day bég waaye képp ku iñaan nag aw métti lay dara mooy onk ju Omar Diagne dëkke al awjaa yooyu muy Omar Diagne katabtu aw qaratu farra iblis ma kullu shaqiyin garra koo xam ne boo bindee iblis danaan pëccët di daw ak kuréelam yi ida katabtu aw qaratu harwala ila siwaaye kulli man taqawwala kon koo xam ne mbindam kitaabati min lawx rabbi tanxulu laa yamtari fiiha nabilun yanqilu mu mel ni nag dafa am benoom benn wata boo xam ne da daan wuti ñam waaye daa amu golo yeewu ko ci wata bi golo gi bu nit ñi dee tàccu naan golo golo goloy sëq ñëmb ji di may nit ñi saa yu borom wata bi gaaree nag bu xoolee xam ne ñambi ji manqué na mu perte mujj la mu ne naa ci defub settantal mu fexe ba xool golo gi ci seetu bi seen ne nit ñi koy barawoo di ko tàccu moo tax gaynde di di di golo gi di publier ñambi ji di ko maye mu jàpp ko duma ko duma yu mettee metti yeewaat ko ca gannaaw mu romb dëkk bi nag ña doon tàccu di tàccuwaat di séentu golo sànni leen ñambi mu naan leen nii noppi leen ndax mi ngi may séen fii kon golo gii rëcc ci kër gii di sànni ñambi jii tee ngeen ne yeew seen golo gi ndax bu yàqee ñambi ji yéen la yàqal seen ñambi te du tee ñeneen bay ñambi ñuy dunde ñambi kon na ngeen ci góorgóorlu bu baax sëñ Tuubaa nag sëñ Ibrahima Diop ne na tabban li munkarihi tabban li xaasidihi tabban li man anada kenn du ko noonu am jàmm du sa jëmm a tax waaye ku amul lu mooy lenn ku ko laal gis leen waaye yow yàgg ngaa wax te kenn tontuwu la ba ngay wëri plateau di wut ku la xam ku ne nga jiñ ko franc-maçon akub sàcc ak góor jigéen say wax mënu koo weesu jiw moom la képp ngay wax waaye amoo tegtal boo ca teg boobu jàpp ñu ne yow ku nu war a wuyu nga ndax ku bëgg a lijjitu képp ba nga jàppee ne am nga place nag ba jàpp ne jekk nga boo tooñee ci lañ lay war a door a tontu yow Ximaar Jaañ nga xam loolu xam ne ñun duñ dëpp duñ bàyyi duñ tayyi duñ dellu ginnaaw sëriñ bi lañ am ñoñam lañ am danañ jébbulu danañ joxe danañ gëm te duñ dëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa jërëjëf sëñ